bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu bi asalaamaaleykum wa agsi nañ fii nuy si la ziar ci turu sa doom sa taalibe président Ablaye Sylla mu ne woon ñëw tey ci yow Ablaye Sylla eh, ziar la ci turam ñaanal la ngërëmal Serigne Touba bi la lépp bi la ñëpp yéene ndax ngërëmal Serigne Touba mooy ngërëmal suñu borom ndax sëriñ Touba du gërëm ci dul ngërëmal yàlla wa ridwanullahi akbar sant la it lislaam bi nga xam ne moom la Serigne Touba représenté sa waajur wu baax wa sëñ Motoda Mbàkke bu ñu ko masaan ne que Serigne Touba day wax kër lislaam ndax sëñ Tuubaa lislaam jëpp la fi nekkal Mbàkke tey yow tamit lislaam jëpp nga fi nekkal dajale nga lépp rahmatan lil alamin ëpp na sax lil muslimin waaye rahmatan lil alamin noonu la ko yonent bi sallallahu nekke woon noonu la ko Serigne Touba donne woon ci moom Mbàkke noonu ko fi nekkale ngir Serigne Touba yal na la fi yàlla bàyyi ànd ak wér ak la président Abdoulaye Sall ne woon wax la ko santaat la gërëm la jërëjëf a jërëjëf Mbacke. dégg naa wax bu baax a naa ko déggu a bu ma ko déggee sama nopp dama ko seet na bu baax ab soññu la rek ci man sama soññu la rek bu rëy ci kon noonu la leen di sant di leen gërëm bu baax. waaw ki ko dimbali mooy ki ko sañ soññ ci li koy jëriñ. waaw yéeg yéeg naa wax yëpp ay ab soññu la ci man. mu ne yéeg na wax ne nga nuyoo ko sëñ Ablaye bu baax a baax santal ko ko gërëmal ko ko bu baax waaw nee na nee na mu ne nga ko jottali ziar bi sëñ Ablaye bu baax a baax sant ko gërëmal ko ko ci taaxam a yitte waaye rawatina. moom sëñ Modou sëñ Touba jotee mooy ko waxu di ñëw maanaam di indi otoom maanaam ak carburant ak personnel am am na suñu si ablatif lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu Touba la maanaam lépp da koy def màggal dana fi def fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan lépp def ko addee sëñ Touba di jàmbaar loolu nag waaw mu ne yegoon na ko waaye mu gën koo ràññee baax a baax ndax jëfam ak taxawaayam sëñ Cheikh mais mu sëñ ablatif waxtu wu ne da koy wax sëriñ bi ndax bu màggal gi jubsee day bàyyi itam yëpp personnel beeg ñëpp la fi indi waaw mu ne nga santal ko ko gërëmoo ko baax a baax. yëg naa taxawaay bu baax. te maa ngi mu ne yëg na taxawaay bi mi ngi fas yéene feddal ay laxasaayam gën ko ànd ak yow moom mii ko am taxawaay la. ci réew mi di jàmbaar lool comme sëñ Modou Dieng mu ñaanal ko baax a baax jërëjëf taal mu ñaan Mbàkke taal mu ñëpp taal seen loxo bismillah تبا لمفقده تبا لحاسده تبا لمن عندا